بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشياطين الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم سالحات الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي أنزل القرآن لي لنا الحمد لله رب العالمين alhamdulillahi lazi anzala shahr ramadan fi hada shahr alhamdulillahi ala kulli haal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ak mbokki taalib ak mbokki dëkkandoo ak wëllëre yi noo ngi wax ne fu waay a nekk ci réew mi ak si àddina si ak foo mën a ne di suñu xarit di suñu soppe dégg nga noo ngi àndaat ak yéen suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jàmm du doy fii ci Prestige Thiès TV ànd kook seen xarit Cheikh Ousseynou Sy naaru borom Touba di ñaan ci barke borom Touba mboolem ñi nga xam ne dégg ma ñoo ngi ñu seetaan fu waay mën a nekk ci àddina si moo xam France ba Italie ba Espagne ba Allemagne foo mën a nekk dégg maam noo ngi lay siyaare di la ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm rawat na ci réew mi ak Cees gi ñu dëkk yàlla na ko yàlla def ci barke weeru tedd wi ñu dugg weeru barkeel wi ñuy bëgg a dugg muy wan muy weeru koor dégg nga ah nga xam ne moom lañu wax baraxlu ci wolof waaye mu tudd weeru saabaan ñuy ñaan suñu boroom yàlla nañ ci dugg ci bisimillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin di siyaare bu baax a baax a baax a baax mboolem kilifa diine yi dégg nga sëñ Muntaxa Bachir Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér ñu ñaanal dégg nga sëñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg te waaye noo ngi ñaanal mboolem mbokki taalibe bi yàlla defal leen jàmm waaye sëñ Bay Si soo ci Tiwaawan noo koy siyaare bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Seck dégg nga ca Cene ba dégg ak mboolem waa Cene ba yëpp dégg nga di siyaare bu baax a baax dégg nga waa kër Serigne Saliou ture dunia ñaan sëñ Saliou Touré yàlla yàggal ko fiure ko waa kër Cheikh al Islam no ngi leen di siar de mam aidara di siar bu baax keur kër Abuja wa keur Thierno Jibril Wan di siar bu baax a baax itamit dégg nga al Alassane jall ak wa Jaxaaw gep de nga mbollem wa Ñaseen no ngi leen di siar waye no ngi siar de mam mbollem laayeen yi de nga di siar bu baax baax nga wa keur Cheikh na Cheikh Saad bu nga xam ñofi nek de nga ñop ñep di wax ne suñu borom mi nga xam dara tew ko yàlla na yalla doli jam seen mbokum talibé mo fasiyene yéene waxtaan ak yeen rek lu jëm ci wéru tedd wéru barkel muy lan muy wéru koor wéru koor nak <clears throat> day weer wo xamne ne wéru tedd la wéru barkel la wér la bo xamne ne damay dégg ñu naan promotion la waye weesu na promotion wér la bo xamne ne dénga dégg nga benn bu baax bo ci def lan la koy dañ koy multiplier rawat na nak de nga dañu wax ne ko xamne ki ab julit nga wéru ko di ñew rek nga yakam ci ko ndax bëgg ko ak sopp wéru wi bu tedd wi wax nañ ne bu wéru wi ñewé sax fekk nga am gàllankoor ba woro wéru wi sax am nga yoolu wéru wi ndax sa yéene ak bëgg nga bëgg di nga wéru koor kon xol wéru koor ni mu toll ñu wax ne ñepp dañuy wax di maam ci wer weeru koor gi moy di nga ñuy wax séntu weeru koor weeru koor nun ni ko gisé dégg mam suñu kilifa gi fi nekkal Serigne Touba yalla nako fi yalla yagal te wér ko moy koor dégg nga bu jotaan suñu waree tu wer wi danaan bu ñu jullee tis ba noppi ñepp nañu and genn ñu tu wer wi ñun ñepp ñu génn ànd tu wer wi ndax suumoo li ru'yatihi waftaru li ru'yatihi su ngeen ko gisee dégg ma na ngeen woor su ngeen ko gisee itam na ngeen wari waaye mbooloo bu nu dajaloo dégg maam ba nu gis weer wi ñu ne kon weer waa nga ne Serigne Saliou Touré daan wax ne dégg nga bu ñu ko xoolee gisuñu ko xam daal lëndëm mu ne ak ah, kon gisuñu ko kon kenn gisul weer wi dégg nga kooku mooy suñu référence ñun murit yi jàkkee murit dañu daan wax nañ xool weer bu ñu xoolee bu lëndëm gisuñu ko mu xam ne kon gisuñu ko dégg su fekkee ne gis nañ ko ñu daal di woor dégg kon koor ci boppam soo ko ki nga xam ne kii nag daa sukkandiku ci rajo pour déglu ñu ne ko weer yi feeñ na dégg mu woor su ko rajo bi ne weer yi feeñ na mu wori ki nga xam ne ki déema daa am fu mu tënku ndax am na ñoo xam ne dénga ñoom ci seen wàll bopp dégg nga fan lañ dafa am foo xam ne foofu la ñuy tënku foofu lañuy ñuy déglu suñ leen waxee weer wi feeñ na ñoom dañuy woor duñ duñ duñ làmbatu suñ waxee feeñ dégg moom duñu loolu tamit dégg nga ñooñu tamit ñoom ñoo yor seen droit waaye wax nañ ne su fekkee ne ñaar ñu maandu dégg nga ba yoo xam ne yii gis nañu weer yi wax nañ ne gis nañ ko kon dégg maam dañoo war a woor léegi nag coow li yépp dégg maam dama naa def ne léegi deñ na parce que am na commission boo xam ne bii ñoom ñoo yore saytu wàllu weer wi nga xam ne dégg maam bu jotee ñoom ñooy toog ci télévision bi dégg nga te kuréel bi dafa mel ni kenn ku ci nekk dégg maam yaa ngi bokk ci kuréel gi am ko jiite dañuy toog dégg maam ah Kaolack bu wootee wala Touba wala Ndiassane wala tiawon wala fen wala Niassène suñu ñooñu bu ñu wote ñom ñep bu ñu set ne dégg maam ñi wote nañu kat gis nañu weer wi ñom ñi ñu daari di war loo wor wor woor waye dama ne koor gi dégg maam kenn ku nekk dégg maam dang ko wara mëna setal sa bop nak wax deug yalla ndax bu yalla defé dégg maam ñu gis weer wi nanu wor nanu bayyi dégg maam bu weeru koor dikke de nga kenn ku nek di jàmbat nan dégg mam sama estomac bek sama ulcer bek sama nangam xara xamulen ne wéru koor day faj doomu adama wéru koor day faj yow bo woré de nga nga xëdd bala nga lekkaat da nga ndogu dama ne lu nekkon sa biir bala nga lekkaat dina fekk loolu res li indi febar yi ak jangot li ci gëna bari moy de nga ngay lek di tegal ay lek tegal ay lek na de indi febar deng te wéru koor dama la wax ne li ci nekk kenn ku nekk war na ci góorgóorlu bu baax a baax bu bu wéru koor dikkee dig maam nga gën cee jaamu yàlla ndax weer la woo xam ne loo ci jaam dañ koy multiplier xool alquran soo ko doon soo ko doon jàng dégg maam benn araf bu nekk ñu fay la fukk ah mais bu wéru koor dikkee dig maam benn araf bu nekk juróom-ñaar téeméer la lay fay mbaalu ko kon war nu bu weer koor dikkee danoo war a jàng alxuraan danoo war a dégg maam ah góorgóorlu dégg nga ci maandu ak ragal yàlla ak damm suñuy gis ba duñu xool dégg maam loo xam ne lii dénga nga neexul yàlla dégg nga ñu war a dégg maam toog ah suñuy làmmiñ ñu téye ko lu dul lu baax suñ ko mënte wax nu bàyyi ko ndax weeru koor dégg maam weer la boo xam ne bii yonent dafa wax ne ah ku ci dugg ba génn ci desee benn bàkkaar yow jaaxal nga ma ku dugg ci weeru koor ba génn ci desee benn bàkkaar kon dañoo war a jéglu suñu bàkkaar jéeg mu am suñu bàkkaar war naa set ci weeru koor bi ah waaw kon bu fekkee ne yàlla def na dégg mu am ah yow ngay ngay ngay ab jullit dégg nga loo mën a def ci weeru koor bi dégg nga di ko dimbalee di ko def say mbokki jullit defal ko dégg nga loo mën a naafi la def ko loo mën a dégg maam julli def ko loo mën a jàng alxuraan def ko loo mën a dimbale ci jàkk def ko loo mën a saraxe dégg maam def ko weer la weer wu tedd woo ni ne te loolu tamit bu dikkee dégg maam ba ñuy def yu baax yooyu waaye dañoo war a góor góorlu nag dégg maam mu continuer waaye nag weeru koor bu ñëwee rek nga bëgg a woor bëgg a noppi bàyyi yooyu su weeru koor jàllee dégg nga am na si ñoo xam ne bu ne suba la ñuy wori dégg nga ci guddi ga la ñuy def soirée. commencé dégg maam teug commencé fe mané kon wéru koor kon légui yow lu lan moy njariñ ci ah njariñ gi kay moy dégg nga duggé ci wéru koor ba génn ci nak dégg nga fi nga tegu dégg mam da ngay fexé mu yok way do bay mu ko li nga doon def ci jaamu yalla li nga tuup li nga bay bu fexé ba sét dégg nga fexel dégg mam sa ndab lolu dégg mam nga fexé bu mu gën set maam Cheikh Rafal dafa wax ndongo li jox leen man ndab li ma defal leen ci xéewal ndongo li bi mu yëree ndab li dégg nga daf ko ne ah Fall ndab li de daa setul mun a ah bisimilah jàmm ah dee leen seetal seen ndab ndab lu setul yàlla du ci def déggal maam Cheikh Rafal ah kon doomu war a fexe set xanaa xam loo ne kuy lekk bàkkaar sax boo ñaanee du nangu su fekkee ne ab jullit nga te muy dëkk. ah waxantuma laa nag weeru koor kon weeru koor bi nañ ci góorgóorlu dégg maam ah ñu xam ne weer la boo xam ne bii dégg nga weeru tedd la weer wu barkeel la nañu yeesu ñu njaboot dañ la wax ne sallallahu nee na soo yeewoo dégg nga ah jóg toog nee lal bi ci boppam dalay ñaanal pour rek nga waaj maam lal bi dalay ñaanal soo jëlee satala bi dégg maam dem satal bi dalay ñaanal way ndox ba ngay jappé sax dalay ñaanal dal ya ngay sol dalay ñaanal dégg nga ah waxuma la dara ba ci darab bi nga teud sax dalay ñaanal dégg ma yal na bok ci mbalan sa mbalan aljana yi ëlëk yoomal xiyaam ah soo yëkkatee ma am say loxo nga kabar di julli dégg nga ah su yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam ma ngay tew ci ak yow dégg ma di ñaanal mané lan mo gën lolu wéru koor bo waxé subhanallah kep waxuma nga wax subhanallah walhamdulilah la ilaha illallah de subhanallah képp boo ko waxee yow mi woor dégg yàlla da lay sampal dégg nga ay garabu tàndarma ci biir àjjana te nee nañ foog nga lekk du ma laa nga naan subhanallah walhamdulilah la ilaha illallah allahu akbar ah xoolal loolu sallallahu ala muhammadin dégg maam moo gën a gàtt salaat yi boo ko saxoo dégg maam yàlla dalay bëgg yonent bi bëgg la ashaab rasulullaay bëgg la yàlla digal jaam ñu bëgg la kon nag ci weeru koor la gën a rawee sallallahu ala muhammad moo gën a gàtt salaat yi wala nga def salaat salaat boo mën moo gën ngay neenaal di dox di kii yow bi jigéen di togg dégg ah mais de julli ci yonent bi sallallahu alayhi ah koor li ko li mu mën a yàq daa bari li si mën a yàq sa koor daa bari nit ki da ngaa war a maandu dangaa war a noppi da war a dal da war a toog ci jataay boo xam ne bu yàlla gërëm waroo dem ci jataay bu yàlla gërëm dégg nga waroo jël alal jàmbur waxoo lor waroo lor doom jàmbur doom euh, euh, doomu aadama ah kon damaa wax ne góor góorgóorlu bu baax a baax ci weer wi ñu jëm incha allah bismillahi taala weer wii na ngeen xam ne incha allah dinañ leen indil ay borom xam-xam. yu xereñu yoo xam ne yi dégg maam dina leen wax ci koor ci njariñu koor wax leen ci dégg maam ah naka lañuy war a def ba mën caa jëriñu naka lañ ci war a def ba suñu borom mën noo jéggal dégg nga loolu dinañ leen indil dégg maam incha allah dañ koy ànd ak yéen ci biir weeru koor bi ba nga xam ne dégg nga dee leen seetaan Prestige Thiès TV seen tel la yéen a ko moom dégg nga ah, di wax ne ñoo ngi sant bu baax a baax dégg nga ki nga xam ne mooy borom télé bi di Pape Doumbouya di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne moo yor te yàlla di guddal fan yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla yokk wéram dégg nga ñoo ngi ànd ak monsieur dégg nga maam Guèye mi nga xam ne dégg nga maam suñu caméraman waaye dégg di ko ànd ak ñoom sattir na joon soxna Adama Seck di ko ànd ak dégg maam Moussa mbaay waaye na ngi koy ànd ak dégg maam waa Prestige gépp dégg maam ci émission bi nga xam ne moom moo tudd jàmm doy nga xam ne Ocaali moo leen ko jox waaye dégg maam nuy sant bu baax a baax tey ñaanal dégg maam ah, mboolem waa prestige yëpp soxna Binta Samb yaayam di yar na yàlla dool leeram ci barke Sidna Muhammad salaa salaam dégg nga di ñaanal itamit dégg maam soxna Kumba Njaay Kumba Njaay di sama rakk soxna dégg nga ñu wàccoon Mali fa la wàccee liggéey Malaise la am wàcc fa liggéey ñu indi ko Touba denc ko waa kër Serigne Souhaï bu dégg maam ñoom ñoo ko taxaw seen seen seen seen jili Souhaï bu ak ñoom ñëpp dégg nga. di di leen di sant dégg maam mboolem ñi nga xam ne dégg maam mbokk yi fa ñëwoon ak ñëpp dégg maam ñu jóge woon gañe ak ñëpp di ko massawu soxna Faat dégg maam Faat Ndiaye waaye di ko massawu tamit dégg maam ah ki nga xam ne mooy Ndo dégg nga ak Mbagnick Ndiaye ak waa kër ga ñoom ñëpp dégg maam ah, ak Ibrahima Coy bàyyiwuñu kenn maam Birame mu ngi ak ñoom ñëpp ñoo leen koy kii ba ci maire bi nga xam ne mooy maireu dégg maam gañe di wax na noo ngi sant di wax nag inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dégg nga ndax sunu baay bu baax dégg nga ah di taalibe cheikh ñu koy ñaanal yal na yàlla dolli leeram dégg nga muy professeur Demba Cissokho di yaayu maa Cissokho di papay maa Cissokho dégg nga ah ak yaayam astu diallo dama wax ne professeur demba si soxo keroog bi wàccee liggéey dé nga waa kër ma allah njëgën dama ne noonu nu ko taxawoo dama ne ku fa dem sa xel dal ndax wax naa leen koo xam ne kii nga ah ku la dig booli ajjana dala jox palaatu àddina kero dama wax ne allah mu ne njëgën ma nga france waaye dafa joxe ndigal dégg maam daa di ne dégg nga professeur demba si soxo moomu nga na ko waa kër gi taxaw nga waaw Cheikh Ka ñi jigéen dégg nga ak Fadel dégg nga Ibrahima njigéen dégg nga ñoom ñi ñëpp dégg maam taxaw nañ ko taxawaay boo xam ne bii keroog dégg maam dañ ko wàcceel kaamil ci jumaa ja ba pare dégg nga fiddaawul ko wajifaal ko sang ko sang ko jël ko denc ko dégg ci armeel yi ñaanal ko wëlbati ko ñëw ci kër ga ca suba nga dégg maam ñu ñëw dégg ci sarax si taxaw ko ñu wàcceel ko kaamil defa ko lépp damaa wax ne loolu dégg maam ah soxna maa nee na moom ak yaayam Astou Diallo dégg nga ak frère am Souleymane ak Ibrahima dégg nga bàyyiwul dégg maam ba ci ki nga xam ne kii dégg maam mooy jëkkëram di vietaay dégg nga mu sant mboolem mbokkam yi ñëwoon ñoom ñëpp di waaye ka waa kër ma ci jiital dégg nga di sant dégg maam sëriñ dem mi nga xam ne dafa ñëw ànd ak dégg maam ñu mu àndal waaye di sant dégg maam Idrissa Seck Idrissa Idrissa Gaye ak mboolem ñu mu àndaloon ñëpp waa waa kër ma alaaji gépp sant nañ leen ci taxawaay bu rafet ba dégg nga ah sëñ ma koddu sàll mboole mbokkam yëpp dégg maam mooy jëkkër dégg maam ki nga xam ne mooy may mën a dégg si soxo moom tamit mbokkam ñëw nañu dama ne keroog bis ba daal dara lépp lu ci war a taxaw def nañ ko dégg ba mu sotti man nag Cheikh Ousseynou si naar borom Ibrahima Taay bi xam ne mooy magu Vieux ak mboole mbokkam yëpp ñoom Isaac ak ñoom ñëpp kenn desut dégg dama wax ne imaamu jàkka ja seereel nañ ko moom góor gi dégg nga maam ah Demba Sissoko dégg nga jumaa jooju ba ñu fondement bi alalam dem na ci waaye taxaw na ak ñoom mosul jóg foofu dégg nga mook soxnaam dégg nga moo tax keroog dégg nga ñoom tamit fi daawul nañ ko ñaan jàngal nañ ko kaamil alxuraan defal nañ ko ñëpp di di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax ne nag lii su ngeen ko gisee tam ma wax ko ndax wax dëgg yàlla góor gi professeur dama ne ñi mu jàng mbooleem sant nañ leen ci turu ma mboolem turandoo yaayam dégg ma astu jàllo sant nañ leen ñoom ñëpp teew nañu kenn ku ne taxaw nga dégg nga ki nga xam ne ki dégg maam ah mooy alaaj mooy Malick euh, Sanoxo dégg maam di magistrat dégg maam moom tamit taxawaayam sant nañ leen gërëm nañ leen bàyyiwuñu kenn ci koo xam ne ki ñëw na ci bis ba dégg nga ñuy ñaan ci suñu borom yàlla mi nga xam dara teew ko yàlla na ko yàlla xare àjjana waaye ñun ñu fi des dégg ma am yàlla nañu fi yàlla bàyyi sunu ndey tamit dégg ma am na fi yàlla bàyyi soxna Asti Diallo ak mboolem mbokk yi dégg nga Assane ak Ousseynou dégg nga di ay magam ñëw nañu ñoom tamit barke Seydina Mouhamed sa su ko defee rek maa ngi jéglu baax di wax ne nag suñu émission bi nag moom la ñuy daje mooy émission jàmm doy waaye na ngeen ko jàpp nag ci koor gi xam ne incha allah ñu nag yéen rek ba keroog ñuy wari dégg nga yàlla na yàlla dool jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi jéglu baax a baax bismillahi arrahmani arrahim yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu qadimu man sumadu muhammadu yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu